mooy ñun ñëpp ñu ñu yëg ni am na fu ñu commencé am na jéego yu am solo yu ñu def waaye li ñu dese bëri na torop su ma nee li ñu dese bëri na nag bu leen ko jàppee rek li ñu dese pour ñu mottali ba war a mun a egg ci nguur gi yàlla dénkuñu lu ñu mën a appliquer suñuy idée soppi réew mi définitivement waaye fi ngeen ko war a déggee mooy ñun suñu biir déjà ñun suñu biir li ñu dese bëri la parce que yéen ñëpp suivre ngeen li ñu jóge mooy investiture élection locale investiture yooyu nag jàngat nañ ci lu bëree bëree bëri waaye man principal jàngat ma si jàngat mooy li ëpp ci ñun li ëpp ci ñun wuutewuñu torop ak ñi ñuy ŋàññi tey ba bëgg leen fi jëlee léeg-léeg sax damay est-ce que ñun yéesuñu yéesuñu ci ñooña parce que li fi xew ak li ñu wone lu doy waar la ndax ci Pastef rek nga gisee d'abord bi ñuy def suñu investiture interne ci Pastef nga gisee ku ñu tànnul rek mu ne tey ma xaru tey ma tas réew ku ñu tànnul rek mu mel ni àdduna foofu la yem te pourtant ñun ñëpp dañu ne woon projet bi moo ñu intéressé jëmmu Ousmane Sonko sax amul solo waaye projet bi moo ñu intéressé projet bi changé wul une virgule tey la projet bi gën a doon projet tëgg nañ ko mu dëgër xam nañ fi mu jëm te dara changé wul du ci discours bi du ci comportement bi du ci yéene gi ñu am ci réew mi mu des nag li jëm ci suñuy jëmm kenn ku nekk individuellement waaye. premier enseignement bi mooy xëccoo falu xëccoo falu man maa war a toog su dul man du keneen wane na ni li ñu desee bëri na trop que compréhension bi li ñu war a am ci projet bi des na lu bëree bëri bëri ku ñu falul nga ne gedd naa ku ñu falul nga ne banque naa sama yoxo duma campagne ku ñu tànnul nga ne dem naa defi liste parallèle te boobu jamono yow xam nga ne liste parallèle bi ngay def dafay wàññi doole parti bi ndax ay xob ngay ut dem sottil ko keneen ku dul parti bi keneen ku dul coalition bi ba pare ne yow yaa ngi ci projet bi ba léegi boo jógee ne waaw élection locale la nii la mën a demee waaye buñ ci génnee man présidentielle maa ngi Ousmane Sonko bu dee affaiblir nga Ousmane ko ci élection locale ba pare looy loo looy looy dooyee ànd ak moom ci élection présidentielle parce que jamono jii dañuy togg li ñuy yóbbu ci élection présidentielle waaye li ma ci bëgg a wax rek mooy diggante théorie bi discours bi ci patriotisme ci gëm projet bi ak épreuve bi mu ñëwee épreuve mooy toll nañu fu ñu waroon a tànnee suñu ñu ñu war a jiital ci benn élection ndax élection day doon kese bi mooy suñu première élection locale am na lu mu wone lu lu lu firndeel ni wutewuñoo gaa yi trop li ma gis ci Pastef sax gisuma ko ci yeneen coalition yi ndax Pastef rek ngay gis ku ñu ne tànn ñu la rek nga dem woo presse bi lu la neex nga wax wala nga dem ci Facebook lu la neex nga bind loolu gisuma ko ci PDS gisuma ko ci APR gisuma ko ci réew mi gisuma ko Pastef rek laa ko gis kon loolu njàngat la ñaareel bi mooy lu ñaaw lu ñu mën a wax ci politique rek ci anam yu mel nii ci coalition bi ñu bokk mun naa ni quatre vingt pour cent yi ci Pastef la jóge ndax ñi daw ak ci Pastef lañu jóge ñi kidnappé mandat bi ñu leen yi wër ci dëkk bi ci Pastef la jóge ñi mer dem def liste parallèle ci Pastef la jóge ñi dem ñi wóolu leen ba ba def leen mandataire ñu dem ba ci biir préfecture ko daa di changer list bi génne ki ñu defoon tête de liste bind seen bopp ci tête de liste ci Pastef la jóge waaw loolu est-ce que bokk na ak ñun la ñëw yi valeur yi ñuy woote valeur yi ñu ne moom la ñu bëgg réew mi ku mën a def loolu xam nga ni bis boo ko dénkee keesu keesu état bi mu mu mu mu këpp ko ki mën a daw ak mandat parce que jox nañ ko xaalis ki mën a soppi liste ki nga xam ne un deux mu ne mer naa dem naa feneen wala tey naa sama loxo kooku ëllëg boo ko joxee responsabilité ci réew mi boo moytuwul lii ñu doon jooytu fii du lu ko raw lu ko lu ko raw dinañ ko gis kon njàngat gi mooy liggéey bi des na lu bëree bëree bëri bëri de am nañ ko fi mu toll nii ñu ngi koy commencé am waaye qualité gi des na torop ñii dinañ ma ne problème formation la ñeneen nañ ma ne problème encadrement la ñenn ñi nañ ma ne problème mu maturité politique la waaye jàpp naa ni am na loo xam ne bu dee mi ngi ci nit nga jikkowoo ko mooñoo ko am na loo xam ne soxlawoo ko jàngal soxlawoo ko la ko jàngal njub kenn du ko so dem ba am trente ans quarante ans cinquante ans am na loo du luñ ne jàngal mën a gëm say principe ba dara du la këf du alal du luñ la dikk wala du du xoppatal kooku defee naa weesu na fuñ ko war a nekkee di jàngalaat nit ñi donte parti bi war naa continuer di former donte it nag parti bi formé na lu bëree bëri bëri wax na lu bëri parce que première formation mooy yow ki la jiite wala ñi la jiite lan lañ leen woon ak lan lañ leen wax te wax nañu waxaat wax nañ ci télé wax nañ ci rajo yi am ñu jaar-jaar ci réew mi kon loolu mooy première formation parce que première formation mooy par <clears throat> l'exemple par la pratique et par le modèle kon loolu su ngeen gisee ma dooree foofu dafa fekk ma jàpp ni yéen ñi nekk ci diaspora bi de manière générale donte yenn jàngoro yi am fii euh, mucc leen ci à cent pour cent waaye yéen ñi nekk diaspora bi en général da ngeen gën a wone parlu gën a wone engagement gën a wone désintéressement gën a wone waaye gën a wone compréhension ci projet bi kon yéen dañ leen di joxe toujours en exemple dama naan bu dee ñu ne ci diaspora bi ñi nekk biir réew mi noonu lañ ko comprendre woon waroon nañu mën a am yaakaar ni mbir mi dina gën a i yomb dina gën a gaaw dina gën a baax